maa ngi sant gouverneur Ahmed Sy ak directeur hôpital national sama doom bi ma tuddee Macky Sall bi mu defee accident ñoo ko fay analyse bi mu jeex wante ba léegi am na lu des surtout ma Macky Sall ma koy tuddee kaw ma defa tombe keroog bi mu defee élection deuxième mandat am deuxième tour mu gagné présidence sama doom juddu moom moo ko yelloo dama ko ko tuddee man Ahmed Sow dama ko ko tuddee tuddee naa ko muy Macky Ahmed Belal Sow maa léegi dafa def accident ci miir ba mu ngi hôpital euh, national IRSA régional bu Cees IRSA mu ngi IRSA eh, man jënd naa ordonnance ba li yoroon jeex na tàkk tey demay dem ci ngir yàlla rek a yonante bi ku ma mën jàppale ma sant yàlla santala la wante maa ngi koy yéex la mm, président de la muy turandooyam Macky Ahmed Sow maa ngi dëkk ndax mi faal teenu mam jaara wante moom kam mu ngi nii hôpital kam yaayam ndekki na wala baa ndekkiwul wante man kay maa ngi fii ci jàmm ak salaam ku ma dimbal rek laa wut. 76. 340. 340. 87. 87. 34. 34. kala cohli ɗomi heeɓ komo boggo sohla komo boggo dimbali fof ngay woote mm. ci moom ngay jog eyi bandiraaɓe ɗon min hammed belal med innide président de la république ɓiyam wiyete ko maki hammed belal sow teeno mam jara medena faal e dañi accident noon an boni hôpital mawɗo o wako digam yallah mi yetti allah mi yetti gouverneur ahmad sy saabu kala ko dañmi hen ha kay waɗa analyse ko kay waɗi kama directeur hôpital o baba babacar mane miɗaɓe do'ano yo allah jundu gurdam ɗam joni jiɗmi tan ko yo pertida andu meɗɗum innide ɓinguel am a gueeli hôpital rational leli mi wawa mi kala codannomi ordinaire mi soodi hami gasni jiɗmi tan kala ko mbawɗa e wallu ballami saabi allah ngal numéro o 76 340 87 87 34 34 kala cohluɗo ɗomi ɗon firtida ko ɗon tan woni memoram a jarama